Denis Ndour maa ngi lay nuyu. maa ngi leen sant di leen gërëm. Denis Ndour nga nekk vice-président bu Ligue sénégalaise des droits humains déjà naka nga gisee euh, ni ñu agressé euh, député Guy Marius Sagna ca Togo naka nga gise mbir mi. waa loolu dañ koy ñaawlu parce que dañ koy ñaawlu mooy nit moom saa boo ko agressé physiquement rek lu ñuy rafetlu ak nit lu mënti wax lu mënti def jàpp naa ne war nañ ko mën a faj. te bañ koo faj ci fitna boo xamante ne nit ki dañ koy xoxatal ba laal yaramam wala boog def loo xam ne dina ko gaañ euh, Guy Marius Sagna nag ñun ko xamee fii Sénégal mooy ku honorable Guy Marius Sagna yàgg na di yëngu ci loo xamante ne dafay booloo lëkkaloo Afrique maanaam panafricanisme moom jàpp na ne euh, Afrique dañoo war a booloo euh, nekk benn pour que waa Afrique ñu mën a gis njëriñu Afrique waaye loolu pour ñu def ko il faut que nasaraan bi nga xamante ne moo ñu mos a noot euh, nasaraan bi mën ñu bàyyi ñuy demal suñu bo te boo koy xoolaat nag loolu dépendre na ci suñuy njiit maanaam président africain yi ñoom ñoo war a jëlal seen bopp mandarga buy wane ne ñoom dépendre ñu à cent cent ci ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi di leen wax lu ñu war a def ak lu a def euh, jàpp naa ne nag am na ngelaw bu am doole. Euh, boo xamante ne mu ngi commencé souffler maanaam dañu am léegi ay acteurs politiques yu bees ay ndaw yu xereñ yoo xamante ne Europe lañ jàngee xam la fa xew euh, nekk seen i dëkk xam li fi xew euh, te jàpp ne lawoon day woon ni loolu nag pour mu màndarga màndargawu il faut que mu nekk lëkkaloo boo xamante ne biir Afrique yëpp lay doon jàpp naa nag ne Sénégal wane na ay ci mbir moomu ah parce que gis ngeen ñi yor réew mi léegi ay ndaw lañu ah ma jàpp ne nag loolu bu ñu ko dee def njeexital bi rek mooy ñu mën a gis li ñu naan euh, CEDEAO des Africains CEDEAO des peuples maanaam loo xamante ni ñu yem rek ci njiit ñi waaye day wàcc ci ba ci askan wi ñu gis ci seen njëriñ a ah, loolu nag jàpp naa ne xëy na ci yëngu boobu la Guy Marius Sagna nekk euh, fële Togo ba ñu invité woon ko. mu am ci tolof tolof yu ñu mel loolu nag dañ koy ñaawlu waaye nag euh, lépp loo gis rek xëy na ci waxin ba la bu fekkee li mu wax euh, dafa te tegginewul ci waxin man jàpp naa ne mun nañ koo war a ko waaye jarul ñu koy xoqatal di ko def loo xam ne waruñu ko def parce que seen seen seen euh, frère africain la ndax Afrique ñëpp ñu ñoo ko bokk voilà donc man jàpp naa ne daal loolu lu ñu war a mën a dàq la. Mhm. déclaration universelle des droits de l'homme nag a ak yelleef doomu aadama mhm. dañu am benn charte boo xamante ne dëkk yëpp ci lañ tënku ba pare si seen i constitution dañ ko ci mandarga mhm. ah constitution bu tëggoo nag xaw ma luñ ca bind waaye jàpp naa ne bu fekkee d'accord nañ ci loolu kon waruñu ko mën a xooqatal waaye nag dëkk bu ne ak say loi yi nga lal te yow foo mën ci dem aussi da nga war a respecter loi yi nga fekk ci réew ma nga jëm waaw man laa daal laa ci mën a wax Mm-hmm. di ñaax ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci mbirum panafricanisme ñu koy teg si yoon te xam ne panafricanisme boobu mooy njeexital bi am na ne dina wane ne Afrique war na mën a demal boppam. Mm-hmm. élection législative yu 17 novembre 2024 déjà est-ce que amul lenn loo xam ne yéen yéen a ngi koy dénoncer par rapport ak processus électoral bi ba fi ñu toll nii. waaw jàpp naa ne processus électoral bii nii il faut que mu nekk. Euh, boo xamante ne du mel ni yeneen yi parce que dañ ko duppee élection anticipée ndax mënuñu tas assemblée nationale ba pare di yàggal pour amaat institution bu bees parce que assemblée nationale dafa nekk institution boo xam ne euh, dafa indispensable ci fonctionnement dëkk boo xamante dangay ngay woote sa bopp démocratie wala état de droit dañu ñun loolu la ñuy woowee suñu bopp kon nag mu gën a gaaw ñaame amee assemblée nationale rek mooy am njeexital bu gën ci askan wi. waaye jàpp naa ne aussi euh, xëy na élection anticipée waaye aussi dafa war a tegu ci kaw yoon ba tax na ministre de l'intérieur da na ak société civile yeeg acteurs politiques yi pour wax leen ñu toog waxtaan ci naka la war a demee ci loolu nag am na waxtaan bu rafet ndax ku ci ne wax nga na nga bëggee ak na nga xalaate te benn xiiro xiiroo ngaayoo amu ci ba jàpp na loolu avancé démocratique la beneen bi mooy ah am na ñaxtu buñ fa def mooy que ne est-ce que mënuñoo doxal télé liste euh, dépôt liste yi waaw loolu nag euh, ministre bi nee na moom tëjuwu ci dafay dena ci waxtaan ak premier ministre ak président bon lu ñu ko yeggee moom mun ko yeggee les les différents acteurs kon jàpp naa ne loolu aussi buntu bu ubbeeku beneen bi mooy le problème des casiers judiciaires bokk na ci gàllankooru acteurs politiques yi parce que difficile pour seen ñi ñu war a tabb ñu am ko Euh, loolu nag dama interpeller état pour que ñu mën a digitaliser parce que bu ñuy wax réforme de la justice loolu aussi ci la war a bokk tey booy doxantu nga romb ci tribunaux yi tribunal boo mun ci romb da gis ni ñu bëri ñu rang ci mbedd mi boo la waxee loo fi def dee ne casier judiciaire la ñu wut jàpp naa ne war nañu dépasser stat boobu bu fekkee dañu digitaliser rek war nga mën a def sa demande ñu wax la bërëb sàng ba sàngam ñëwal jël si nga ñëw jël si nga fay via Orange Money wala via Wave euh, nga xamante ne vraiment doo nekk foofu di perdre sa temps di rang di yaa toog foofu lu yàgg donc loolu lu ñu war a lu nguur gi war a mën a xoolaat la pour que ñu mën ko régler mu nekk loo xamante ne du du ñuy xaar élection rek pour mën ci jublu mais mu doon loo xamante ne euh, citoyen bu ci mën ci soxla papier nga mun ko jot ci anam ñi mu gën a gaawe te doo ci perdre sa journée Euh, wala ay jours sax te doo mën a liggéey di nekk di rang yi dul jeex donc loolu lu ñu war a mën a dépasser la ma jàpp naa ne ah question administrative la te ministre bi adressé na ko donc jàpp naa ne ñooñu dinañ ci am luñ ci farlu beneen bi mooy li ñu war a andi consensus mooy ci yan anam la ñuy voté ci bulletin bi ndax yéen a ngi fàttaliku élection locale yi fi amoon bu njëkk ba ñu amoon fii euh, liste yu bari yi jafe woon na lool pour ñu organiser logistiquement élection yi. te amoon na confusion jiiri jaaxa ci citoyen ci naka la ñuy tànne donc jàpp naa ne bii pa war nañu mën a gaaw am ci benn euh, consensus pour sénégal yi xam naka la ñuy voté bu fekkee ne liste yi dañoo bari waaw dañuy ne nag expression démocratique la euh, ñëpp ñi motal war ñu mën a bàyyi ñu dem ci jomante waaye ñu waxante dëgg am na ñoo xamante ne moom dañuy yokk pour euh, nga yokkal ñu xaalis bu ñu dépensé rek waaye wóor na leen ne xëy na peut-être du ñu am sax benn député waaw loolu nag benn reconfiguration politique la laaj maanaam war nañ mën a dem ba loolu ci étape comme États-Unis nañ koy defee ñaari état ñaari parti pardon yoo xamante ne ñoom ñooy les parti les partis majeurs yeneen parti yëpp boot ci seen ginnaaw su ko defee ñuy def seen i primaire ñu mën a di choisir ñi am na ñu leen war a représenter lool nag yegguwuñ fay te am naa yaakaar ne xëy na dinañ fa yegg su ko defee euh, tolof tolof fi mel ni ay liste yu bare ay candidats yu bëri dinañ ci mën a mucc waaye mais nag bon am naa yaakaar ci administration bi te am nañ xarañteef boo xamante ne dinañ def tout ba ñu génn ci sur le plan logistique ba élection yi ñu mën ko organiser mucc ayib ndaxte damay faral di wax élection moom avant la. pendant et après bu fekkente li nga xam ne mooy avant maanaam jamono bi ñu toll jaarul yoon rek xëy na mën naa ni gàllankoor bés ba te bés ba soo amee gàllankoor loolu mooy bu bu résultat génnee dañ koy contesté. Mhm. pour ñu bañ a yegg foofu nag jàpp naa ne lépp lu ñu war a def. ci ci en amont maanaam jamono bi ñu toll def ko mucc ayib te loolu dañ ci wéy mu def ci lépp li mu war li ko war pour que loolu mën a ànd. Mhm. Euh, Denis ñu gis ne aussi ci élection législative ba léegi ñu ngi laam-laamee éligibilité bu Ousmane Sonko ak bu Barthélémy Dias en tant que juriste lan nga ñu si mën a wax est-ce que ñoom ba léegi ñu ngi éligible ou bien c'est le contraire. waaw xam nga souvent sax euh, dañuy faral di wax toujours ah diw dafa perte euh, ses droits civils et politiques mais fàttali ne loolu. dafa war am juge bu koy mandarga parce que bu ñu la condamné aussi te loolu juge bi mandargalu ko bul jàpp ne yow mii amuloo droit nekk éligible wala nga wala nga voté dëgg la euh, code électoral day day day signifier ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkul éligible euh, ci joŋante waaye lu mu mënti doon juge bi ci boppam daf ko war a notifier juge bi nag tant que notifier ko Euh, le conseil na moom day jàpp toujours ne euh, moom mu ngi ak ses droits civils et politiques donc mën na jamante comme mën na nekk euh, candidat wala mu nekk ci liste wala mu dem voté ji beneen laaj aussi bu am solo naka nga gisee reddition des comptes bi nga xam ni tàmbali nañ ko avec le pôle judiciaire et financier waa jàpp naa ne réforme majeure lañ def ci voilà institution bu bees boo nga xam ne moo remplacé parquet financier moo remplacé CREI parce que CREI a woon chance de appel donc dafa doon limiter euh, ce ce droit à la défense donc loolu amatul léegi euh, ma jàpp ne aussi bu ñu wax ne andi nañ institution bu bees ba pare liñ ci jublu woon pour l' édition des comptes amuñu ko booy xool tey dëkk bu mel ni beneen exemple bu baax la ci mbirum criet ñoom criet la ñu am ci crime financier euh, donc pour wax ne euh, maanaam jël alalu réew mi loolu pour ñoom lu garaaw la boo xamante ne rek lu yomb ni war a mën a bàyyee mu jàll la euh, te foofu dama fay rappeler que dañu toll si exigence citoyenne boo xamante ne tey dans la reddition des comptes citoyen dañu war a xam lépp nu mu tey euh, bu ñu doon def sax li ñuy wax médiation pénale maanaam nga ñëw ci juge bi ne man dangu naa ne maa jël tant de milliards dinaa dugal li ngeen bàyyi ma ma dem Sénégal dañ ko war a xam dañu war a xam ñaata la te dañu war xam xaalis boobu si bi ñu ko jëlee kon lañ ko dugal pour askan wi parce que après tout euh, liñ leen di topp askan wi moo tax ñu ñu leen topp du pour seen yëfu bopp ñoom ñoom nguur gi ah reddition des comptes nag pour man lu normal la war a doon parce que nit ki bu ñu la dénkee alal ju bari ay million wala milliards te yow moom moo ko askan ko moom boo dëgg yàlla boo demee ba neematoo fa war nañ la càmpar nga fan ak fan nga dugal liñ la dénkoon te par sax euh, nit ki moo war a amal jomal boppam ne man jom naa ñu may arrêté aéroport rek wala di ma di ma ma nekk ak man maa war a ñu mettre à disposition ñu régime bi doogu ñëw pour wan ne man aw dara lu may nëbb li ma doon def dama ko teg ci yoon benn coow du am ñaareel bi mooy euh, ñu arrêté nit aéroport parce que waroo génn ndax ay enquête euh, juge daf la war a def notifi notification juge d'instruction te loolu ñu loolu lañ ci principe yooyu la ñuy dox ah nit ki nag bu fekkee ne nag euh, respecté wuñ loolu jarul ngay def tapage ci ci média yi yow xam nga li nga war a def jël sa moom mu défendre la xam na procédure yi nu mu nu mu war a def pour ñu respecter ko parce que procédure judiciaire bi ñu ko respecté wul rek maanaam procédure dañ koy dañ koy commencé à zéro maanaam tout devient caduc kon nag loolu ñoom en tant que ministre xam nañ ko donc euh, il aussi de vouloir faire tout un tapage ci loolu te yow xam nga yow fi nga war a xam nga li nga war a def parce que da ngay exposer sa bopp sa boo koy def mm-hmm. donc man jàpp naa ne aussi euh, jàpp nit waroo ko toroxal waroo ko humilier xam nga fi nga ko war yokk convocation mu dem wuy ji bu ko neexee mu ànd ak avocat te c'est exigé même ah, parce que nature singulier moi mooy que ne waroo waroo déglu nit ki te avocat mu teew xëy na suñu ñàkk euh, accompagnement sur le plan euh, judiciaire de nos citoyens mooy tax ba ñenn ñi dañuy am avocat te loolu du yoon boo xoolee yenn dëkk euh, avancé yi dañuy am avocat yoo xam ne état moo koy teg pour citoyen soo mënulee andil avocat sa bopp ñoo la koy tegal pour que sa ak sa ñu mën ko sàmm. Hmm. donc foofu aussi dañ ci ñaax nguur gi que def reddition des comptes mais nañ ko def en en toute transparence ak ci orma bañ a humilier nit ki a fexe ba euh, voilà nit ki daal ak ak yelleefam ñu respecté ko waaye nañu jàpp ne reddition des comptes wax dëgg yàlla te ba xool ay chasse aux sorcières rek. Euh, wala ay single yi wala ay fayanto déedéet lu normal la rek nit mu fekkee deful dara dañ koy bàyyi mu dem joxe ay soxlaam xëy na nag nit bu fekkee dafa feebar bu boobaa kooku moom dañ ko war a bàyyi mu dem faju ji fekkee dafa war a dem faju ji waaye bu fekkee feebarul moom wax dëgg yàlla war na mettre a euh, disposition euh, ñi fi ne pour ko ñu mën ko càmbar aussi mu mën a setal daram mën a nekk ci jàmm dund si jàmm ak euh, suba mu mën a mu ñu jox ko yeneen ndomba tànk. voilà merci beaucoup Denis Ndour ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité et puis ñuy fàttali ni Denis Ndour euh, vice-président nga ca Ligue sénégalaise des droits humains jërëjëf. merci.